milliards yoo xamante ne nii kii di Mamadou Lamine Diallo na ngay sàkku fële ca euh, assemblée nationale ngir rek ñu saytu xaalis boobu euh, fu mu dugg ak ni mu def waaye nag euh, nee nañu Ousmane Sonko gars yi nga xamante ne ni ñoom ñoo doon ànd ak président Sall moom ñëwee bëggoon nañu jege ak moom saa fonte photo waaye nguur si daal daf ko la waaw macha allah mu nekk loo xamante ni lu am solo la hmm. waaw moom building moom bu ñu ñëwee def nañ ci plus de cinquante nangam milliards xam nga loolu aussi tamit ba léegi euh, ministère yi nekk bari na yi mhm. kii donc defe naa ni dem saytu li nga xamante ni bi mooy chantier yi xool fu mu toll parce que ministère yi bari ñu ngi wëndeelu fu ne la dem di luye waaw mhm. di luye fii luye fële loolu mu nekk dépense yoo xamante ni bi dépense yu doy waar la mhm. te xaalis bi ñu joxe woon xam nga building bi commencé woon nañ ko d ba ci yàgg ñu ne xaw ma tàkk na waaw eh, amoon na fi ay jafe-jafe ñu defaat marché Sandaga moom yàgg naa lakk te daaw ñu ci def lu uh, ñu uh, toll mm-hmm. waaye defaat nañ ci sept milliards mm-hmm. yoo xamante ni bi <laughs> doy na waat xam nga loolu moom kéemaan la mm-hmm. waaw xam nga parensaay moom mooy surfacturation yeeg yooyu ndax loolu noonu la demee wala demeewu ni je pense que ni état ñi ngi ci te am na loo xamante ni bi lu ca lëndëm rek bu soobee yàlla defe naa danaa leer ci kanam xam nit ñi nag dañoo yàkkamti affaire yi ñëwandoo mais affaire yi balaa ngay tuumaal nit. Mm. da nga koy saytu ba pare. parce que gis nga tuuma. Mm-hmm. dafa garaaw. Mm-hmm. waaw donc tëb tëb rek nag eh ñii ay sàcc lañ. Mm. du noonu. da ngay saytu ba am lu wër nga soog koo génne kon donc il faut du temps. Mm-hmm. pour nga mën a wax li nga xam ne moom nga war a wax parce que loo xamante ni bi peut-être boo ko waxee setal nit warta gaaw tuumaal nit it warta gaaw. parce que balaa ngay setal nit it war nga càmbar. xool te defe naa ni ñi ngi ci. te tamit balaa ngay euh, wax nga xam ne booy wax li ngay wax da koy teg fu wér nit ñi bañ a njortu ni politique a ngi ci wala fayantoo ngi ci wala lii a ngi ci. Mm-hmm. loolu moom mooy li léegi leneen li boo ñëwee ci cadre bi nga xamante ni ma jigéen mm-hmm. moom la ñuy wax euh, wàllu photo xam nga photo moom am na koo xam ni moom jàppee na ni photo du dara mm-hmm. mais am na ñoo xamante ni bi euh, ci photo ci lañuy liggéey waaw ci ñi photo wool ci ñi kii parce que photo ndax xam nga foto ah. eh, ça dépend ci moment bi nga xamante ni moom nga photo nit ki après lan nga ciy jublu hmm. xam nga man gis naa benn waay boo xamante ni bii hmm. eh, photo wu na ak président Diomaye photo bu yàgg hmm. waaw comprendre photo bu yàgg benn bis mu génne ko daan ne Diomaye gi nii man ak moom ñoo daan ànd ah. xam naa ko bu baax yaa ngi dégg daan ne ñi ngi ko tuddee woon euh, sëñ Basiiru mu xàcc yaa ngi dégg mm-hmm. waaw daal di ne nen nanga maanaam expliquer yeneen affaire yoo xamante ni bi daal di ne yokk ci lii gi yi maanaam expliquer yeneen affaire yoo xamante ni bi li ko may pour mu wax loolu pour dëggal moom ay waxam mm-hmm. yi nga xam ne du dëgg mm-hmm. mooy photo boobu la utiliser pour dëggal ay waxam waaw mais dafa jël photo boobu pour dëggal am na koo xam ne photo boobu rek lay gis daal di ne ah dëgg la dafa doywaat am na koo xam ni bu ñëwee di photo woog yow. te gis nga ñoom ñu ci mel ni ñoom euh, premier ministre Ousmane Sonko fi ñuy ne dafa am ñoo xam ni ci loolu la ñuy liggéey ay bëri na ay escroc yoo xam ni nañ am ak moom photo rek bu ñu amee moom photo rek photo boobu mën nañ ci arnaquer sax les autres. Mm-hmm. parce que xam nañ bunt yi kii gis nga waaye sa waaye sama waaye la de gisoo keroog bi mu ñëwee sax maa ko dalal. fekk yow maa ko def nii maa ko def naa maa ko def ne lépp maanaam mën na interpréter photo bi. benn yeneen wax yoo xamante ni ba tey ndax ci yeneen nit escroquer leen. Mhm. comprendre nga. te fekk na yow yaa ko may rek pour def photo xam nga man. kenn waaye mës naa ñëw ne ma saa dama bëgg ñu photo mm. ma taxaw ñuy photo sa waay au lieu muy photo mu def vidéo. daal waaw saa a ngi ne gars yi sama copain la man ak moom xam nga dañuy yàgg affaire ma ne ko déet xamuma la ñu ngi soog a gisee. ay saa mu daal di coupé non seulement li lay wan ne la waa ji juba jubut. parce que moom photo la ma wax ne ma moom lay def ak man. Mhm. mais ci kaw photo bi. Mhm. génn na cadre photo donc rompre na euh, contrat bi ñu taxoon ma taxaw. léegi def na vidéo léegi bëgg a wax loo xamante ni bi nekkul comprendre. Mhm. mës naa def ak nit émission bon bu mu tudd mu daal Eh, mi ngi liggéeyee Walfadjri ñu ngi koy fay xaalis bu bari affaire bi te fekk loolu amul. mais ci antenne bi laa ko waxee ne ko loolu amul. waaw parce que parce que bu ko waxee ëllëg si biir man ma taxaw eh, mu wax loolu. Hmm. ma cautionné ko bés dana jot mu wax lool te bés jotaat na sax mu wax loolu. mais bu ko waxee peut-être que ni boobu anticiper woon naa li nga xam ne mooy yëf yi. Hmm. parents yi da ngay xam yëf yi ni muy doxee nga moytu. Hmm. waaw donc loolu mu def noonu. Euh, lu war la parce que tamit euh, un premier ministre tey boo amee photo am mën nga cee nga def ak moom photo mm-hmm. ci kii ak yooyu mm-hmm. photo boobu mën nga wax lu ne waaw bi muy ñëw sax man la woo bi ma woowee ba pare xam nga après ma ne ko bon garaaw dinañ fa daje mm-hmm. comprendre nga après ci lañ amal pose bi sax quoi photo baa ngi nii gis nga affaire yooyu daa dee wax yenn affaire yi dëgg la Mamadou Lamine Diallo nag nee na nag il faut ñu dem euh, vraiment lijjanti euh, cinquante milliards yi nga xamante ne nii wax nañ ni jëf nañ ko foofu noonu fële ci assemblée. waaw mais loolu bu ñu ko bu ñu ko waxee nii xam nga nguur guy soog a ñëw. Hmm. Euh, boo ñëwee di wax yooyu day mel ni ni maanaam mën nañ ko interpréter affaire politique. Hmm. nañ na seetaan gars rek ñoo xam ne teg nañ seen i liggéey stratégie stratégie ñi ngi dem. bu leen jiitu ci yenn yi parce que kenn du ko jiitu ci mbaram. Mhm. comprendre nga mhm. nañ déglu ne tekk bu ñu demee nag ba mu yàgg nga ne ah kii mais fi mu toll nii ñoom opposition bi rawatina ñi demul ñi demoon euh, élection ñàkk ñoom dañoo war a gën a noppi. ba ca kanam pour cent dañoo war a noppi ba ca kanam ak kanam ak kanam. ah mais fàttali la rek. waaw mais fàttali fàtte fii lu ñuy fàtte xa gu fi mm. buñ la waxee ne la. Mm. Ousmane Sonko dem na. Mm. ngir vérifier chantier yi. loolu léegi lenn la ci saytu. léegi nag boo fa nekkee naan euh, xaalis baag lii ak lii ak lii soxlaagu ko parce que ah, man li may bañ. waaw mooy gis nga lépp loo xam te man defe naa ni nguur gi comprendre nañ loolu. parce que président Macky Sall daf fee defoon loolu loolu acte politique la quoi maanaam tëb tëb rek yuuxu waaw kees yi dara newu fii kii lii ak lii kërëb kërëb sàcc nañ kii Ablaye Wade jël na moket yi def na lii def na yooyu. Mm. foofu sax la la waajooju bëgg a dugal Omar saw moom di wër di wax. maanaam gis nga jeu boobu bés bu ci nguur gi tàbbee rek léegi dinañ fi nekkaat di politique ba élection di ñëw donc yooyu nguur gi nañu leen di jéggi bu ñu wax ci yooyu mm. déggoo benn voix boo xamante ni bi voix kii la boo xam ne ñëwagum na di wax yenn wax yi mm-hmm. naan sàcc nañ fii wala fii mm-hmm. fekk ma fa dara wala lii li lii maanaam ñi wàcc sax ñoom ñooy war a di wax naan waaw man laal mais nañ leen bàyyeeg coow li mm-hmm. te saytu saytu xool ku ca ne la nga xamante ni bi def nga ko muy ak njub këyit yaa koy wax lu ca ne ak jubadi enquête yooyu ñoo koy wax ñuy saytu ñoom ñoo koy wax mhm. bu boobaa bu jaaree noonu rek falilaay alhamdu mhm. réew mi commencé na tegu ci siraatal mustaqim ci siraatal mustaqim mhm. loolu daal mooy li euh, sénégalais yëpp di xaar leneen nag muy euh, kii Mbaye Prodac moom itam mm, gis nga de génn na uh, ba uh, wax mbirum rapport bi nga xamante ne ni moom moo fi indi woon coow ba ay doomu aadama ñàkk ci bakkan moom daal nee na rapport bi léegi am na ñëwaat na nangu waaw <laughs> ah, moom kay dafa jëkkoon wax ne am na xëy na amut dellu siwaat ne am na muy ñetti yoon yoo xamante ni bii wax na ñaari am na benn ba la waxoon ni amut benn boobu nag li taxoon mu wax ne amut lenn képp ko sababoon hmm. muy que ni Ousmane Sonko wax na ci nee nañ occasion la pour du nekk candidat nañ fa jaar. Mhm. loolu mooy sababu mbay Prodac taxawaayam bi nga xamante ni moom la taxawoon moom nag ab pion la woon rek ñu doon dox mhm. maanaam amut woon lu muy bëgg ak lu muy bañ mhm. dañ ko doon def loo mu def bàyyiloo ko mu bàyyi biñ ñee ko neel amut mu dëggal boppam ni amut ñu ngi doon xaar pour Ousmane Sonko génne ñu ne ko rësal document. comprendre mais ñeneen ñi ko wax ñëpp yóbbu leen ci yoon kon kenn képp rek kon ah, kenn rek mel nii war nañ koo bàyyi nag mu mu mu seey noonu bu ëllëgee keneen mm. amaat fitu ñëw non xam nga fi mu toll nii tey mm. eh, bàyyil ba ci kanam rek xam nga tey jii bu fekkoon ne Ousmane Sonko dafa ñëw rek ñu ne waaw ñoom Bassirou Diomaye président Bassirou Diomaye Faye ñëw na rek songu nañ mbay mam mbay <laughs> dafay doy waar trop donc loolu bu boobaa day mel ni rek doxalin yi fi nekkoon jógu fi. Mhm. kon donc yëf yi war sa demee noonu. Mhm. ñoom nii yëf yi doxee nii arrangé wu leen maanaam dafa mel ni rek ma jigéen nga def dara. Euh, mu biir la ni sa yaay xam na ni def nga dara toj toj. toj toj waaw yaa ngi dégg mais waxagula la dara. da wu. léegi nag ngay wër a wër la néeg bi léeg-léeg nga ñëw nuyu sa yaay <laughs> Camara ñoom fi mu nii. ministre yi loolooy seen problème. Mhm. maanaam ñi ngi wëndeelu nii mais nekkuñu. dañuy absenté bu ñu toogee kër ga bu téléphone bi. nan la yëf yi di demee maanaam stress bi ñuy dund nii. parce que tey jii ñu ngi nii ñi bëggoon a tukki nee nañ leen seen passeport diplomatique doxatut léegi. jaxasoo nañ. ñi ngi ci biir dëkk bi. xamatuñ nu ñu war a fonctionner gaa yaa ngi leen di bu gauche ak droite ñuy seetaan journal di déglu xamuñu yëf yi stress bi kaso la. dafa metti moo njëkk nekk première prison boo xam ne prison bu gën a garaaw léegi nag yaay wër naan waaw taxuma di wax journal journal yi di bind naan waaw setal nañ ko lii ak lii mm. comprendre mm. yooyu yëpp. ñi ngi koy wër di wax. Mhm. waaye gars yi nee nañ tekk. di déglu léegi nag ñoom ñu ngi naan waaw mbaa gars yi dañoo yëg kii ba nekkoon fee sama denc ba nekk amul fële mbaa yëguñu lii mbaa diw yoolewut ba noppi nag ñu dugalal leen lenn ne leen képp koo xam ni. Mhm. prête non nga boo ñëwee dénoncé wu dina nga ci am. pourcentage ak léegi loolu ñu leen dugalal nag mhm. seen i proche ñoom ñu ngi woo seen proche euh, alors mbaa temps <laughs> maanaam ñu ngi ci stress boo xam ne yow yaay xàppi nii de. mais gars yi ñu ngi ci stress boo xamante a wax. dëgg la képp koo xam ne yaa ngi woon cëg njubadi fi mu toll nii yaa ngi jaxasoo te loolu nag psychose boobu muy def ci yow lu garaaw la dëgg la waaw mhm. léegi socialistes yi ñoom ñu ngi jéem a fexe daje ngir mhm. euh, opposition boo xamante ne nii bu bu bu bu yéeme la nara doon parce que Khalifa Ababacar Sall du ko tuuti ci dëkk bi Barthélémy Dias mooy borom Ndakaaru Aminata Mbengue Ndiaye euh, Amadou Ba nee nañ fi mu toll nii mooy chef de l' opposition donc ñooñu fu ñu booloo daje moom alaaji xam nga ne loolu du yomb jërëjëf ma jigéen <laughs> eh, yàlla na la yàlla doole jàppale laaj bi nga laaj muy laaju saytaane. nga laaj ma ko bëgg bu nekk si penc mi. bëgg ma toroxal <laughs> ñi askan wi toroxal ba noppi nga bëgg ma toroxalaat leen ma jigéen nag li moom maa lànk nii nga ko laajee nii sax laaju toroxalal gaa yi la. waaye wax dëgg fa ah, yàlla. mais mais Amadou Ba mooy chef de loolu mënoo ko bañ. ma jigéen ñoo ko wane. waaw léegi d' accord. waaw ah, d' accord naa waaye li nga wax nii yëpp daal macha allah ni nga ko dajalee nii nga xamante ne bii daal man danga ne mu rek naan ma léegi nag bu leen ñii ma jigéen nag loolu du ma ko def wax dëgg fa yàlla du ma tiiree ci ambulance te yow fi mu toll nii. ah. <laughs> ambulance bii nga bëgg ma fetal ci. ah mais waxtaan ah, bi ñuy waxtaan yow yow nag bu dee mën nga cee fetal jóob fetalam parce que nii nga waxee dajale leen ñoom ñëpp daj leen dugal leen ci ambulance bi ne ma yóbbu leen hôpital du ma dem du ma dem ah. <laughs> d'accord ah, la nga tàggatu. Ah, macha di joxante dig daje. <laughs> suba ak jàmm sa question waane bi. ma <laughs> ne ba parti